ay 17 heures tata Alima Ndione woo ma li may wax nii amul dara loo xamante ne nii maa ngi ko ci sos bi ma tata Alima joon woowee ne ma dañoo bëgg a defal surprise Titi te yow lañ ko bëgg a defal te buñ sañoon nga ñëw. maa ngi wax te bëgg naa àggali nag parce que sama ronga ñu ngi tuur te tayuma ko parce que jour boobu dafa nekk jour boo xamante ne dafa ma marqué dafa ma marqué daal léegi ma bàyyi lépp lu may def jour boobu noonu. jógee fatik ñëw ba dakaar mooy Sen TV bi bi ma ñëwee euh, ma woy moom ba pare mooy Sen TV yéen ñëpp bu ngeen tapé si YouTube bi da ngeen ko gis sax léegi bi ma woyee moom ba pare man je m'attendais à ce tey kenn ci ñoom ne ma toogal toogal nga nga gisante ak titi genre yooyu noonu est-ce ngi dégg mooy jour bi mu naan cinquante mil lañ ma jox barke alxuraanu karim dara du tax may fen te yàlla seede na tey bu rës doon an man man man je préfère man sénégalais kenn bañati maa xam kenn bañati maa nawloo que ñuy bañ a nawloo titi mu jógee ci man yàlla seede na li may wax lu am la ba ma paree trente mille lañ ma dabee ci oto bi ma bi ma bi ma indi woon mooma yóbbu ne ma sa paas mais man xaaruma woon loolu bu ma sañoon. boo affaire jeexee rek dañ may woo ne ma titee ngi nii ma toog man loolu rek laa bëgg toog même bu dee benn deux minutes ak moom waxtaan ak moom loolu kese yàlla seede na ko mais jour boobu joxuñu ma cinquante mille trente mille la ma musa ñaari yoon benn bi Fatick la benn bi benn concert bu Fatick la beneen bi Sen TV woon ma bàyyi sama reeru yaay bi bàyyi yëpp jógee ba Fatick ñëw Dakar uniquement rek pour surprise bi mais bu ma sañoon moom loolu lay am ma sañoon damay toog waxtaan ak moom et tout mais malheureusement damaa pare rek ñu dabee ma 30 mille oto bi ne ma sa paas man tamit ma dem parce que tamit li may rek man bugguma bugguma sonal bugguma déranger kenn waaw bi sama xew weesuwee tamit bëggoon naa dem seeti ko franchement ba am benn numéro doomam buñ ma joxoon mais man dañ maa takk rek ma dem Paris waaw bi ma demee Paris nag ma yàgg fa lool soog a ñibbisi depuis loolu j'ai mais woo naa ko ñaari yoon jotuma ko waaw bu ngeen amee question yi ngeen ma posé amul benn problème bu ngeen ma ko posé rek dinaa tontu waaw mais amul dara loo xamante ne nii tey sos naa ko barki alquranu karim ñaari yoon lañ ma mus a jox xaalis te bu ci nekk 30 mill lañ ma jox waaw. waaw mais ma à chaque fois rek damay bëgg ñu toog mais saa yu ma wéy moom ba pare li mu wax dëgg la de dinañ ma jox 30 000 paas ma dem ñibbi waaw mais mooy loolu. Kalkar götürüyor musun?200 mille ay waay barke Seydina Mouhamed barke alxuraanu karim 30 mille lañ ma jox barke alxuraanu karim billaahi wallaahi wataalaay 30 mille lañ ma jox ku la defal teraanga danga koy sax wax waaye billaay bu doon lool la yàlla seede ne ma wax ko 30 mille lañ ma jox waaw mais bu bugguma ci woon sax tontu bugguma ci woon sax wax

papa merci beaucoup nee na fii ak ah, xam naa dafa am ñu comprendre woon rek man déglu naa ko sax nee dafa amoon yéen a jox ma deux cent mille mais finalement ne trente mille la njor mais trente mille la. trente mille la may jox ñaari yoon waaw man duma suul jëf tey bu doon loolu la ma defal fu ma toll dinaa ko fa wax te yàlla dafa def nag wax dëgg yàlla man fenuma dara lépp lu ñu ma mës a posé question laajte ma wax naa normalement sosuma yokku ma waaw bi ñu jàppee sama datu takk yàlla rek moo ma tiim woo naa ko ñaari yoon jotuma ko waaw ki ma àndaloon a ngi nii mën na ma seede loolu sosuma ko inventé wu ko moom woo na ma dëgg la benn yoon ba ma ko jotee sax man sama jëmmu bopp dëgg la damaa tiit parce que gëmewuma ko woon ma ne ko allo mu ne ma man la man la sa yaay titi fekk ci numéro doomam la ma woo man ancien numéro laa yor bu jeexee 84 xaw ma moom laa yor numéro professionnel bi daan naa tante foofu di ko fa woo mais mënuma ko woon jot ah mais bis woo na ma boobu la ma mës a jot téléphone woo na ma loolu dëgg la bi ma woowee mais après bu appel boobu defuma woon interview si je me trompe mais man am na fu ma defee interview ne. Titi woo na la ma ne leen waa mës nañ déggante mës naa déggante ak moom mu ne ma man la sama maa Titi mais dafa ma ne boo ma soxlaa woo ma ci téléphone bu xale bu sama kii sama doom la waaw man tamit nag kooku woo naa ko jotuma ko man numéro professionnel su ma sañoon moom laay am saa yu ma ko soxlaa di ma ko di ko ci jot. ko woo mais dafa ma woon woo ma ci numéro kii sama doom la kooku bi ñu may takk woo naa ko jotuma ko te keroog bi ma ko déggee wax naa ko ko woo naa titi tamit jotuma ko mais bon yàlla baax na yàlla baax na lépp yàlla baax na yàlla yàlla baax na man su ma sañoon sax duma ci wax de parce que bëgguma mu nduru war a defante franchement parce que billaay dara du ko dindi yaay jëm doon ci man dara du ko dindi bëgg naa ko te dara du ko dindi parce que lu dëggu ci man waaw mais man à chaque fois damay de keroog bu ma sañoon moom numéro professionnel am moom la may jox. Mhm. non non aram détail yu ñu sax mais xam nga de dañuy bëgg di expliquer mu leer parce que ku nekk ak ni ngay comprendre moo tax te man tamit jot naa ci ay menaces yu dul jeex dangaa bëgg a jaxasitee sénégalais yi fenkat nga lu ne moo tax moo tax man damay bëgg damay bëgg di leeraan mais man waxuma ko sama mariage yow borom euh, commentaire boobu nga ne waxuma ko sama mariage. woo naa ko mais jotuma ko ma ne waaye bu ma ko jotoon ndayale bi moom lay doon man loolu laa man je suis comme question boo ma bëgg a poser rek amul benn problème danaa ko tontu.